mbokki internet yi nga xam ne yéenay seetaan NC TV mi ngi noonu lamb ji nga xam ne ma nga doon am fële ca arène nationale ba tax na ki nga xam ne moo di Franc daal dinay daan Bombardier jël bu kon léegi Franc kenn wéranteetul ni dugg na cour des grands waaye Bombardier li ñëpp wax mooy Bombardier dem na li nga xam ne moo di retraite loolu nag mooy li nga xam ne moo am ginnaaw lamb ji nga xam ne doxoon na seen diggante euh, lamb ji sax tax koo yàgg xam ne moom lañ ci toftaloon muy diggante tal talfa bu parcelle Euh, Talfa bu parcelle ak ki nga xamante ni moo di euh, Youssou Ndour moom it Youssou Ndour daal dina koy euh, daan lamb jooju moom it doole daal dina cay feeñ. kon mi ngi noonu journée bi nga xam ne moo doon am fële ci Arène Nationale tombé ak le premier mai 2024 muy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel liggéeykat yi. niki dimanche nag ñi ngi xaaraat lamb ju rëy diggante Sa ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène